jox ko question bi comme dinañ gagné élection yi benn question la waaw question ko commenté jox bi rek. ok waaw benn question la. bu bu ah. euh, daanaka dañu gis euh, sa benn sortie bi nga def euh, ci ci envers ànd sàmm jikko yi ah. mhm. ci la personne de Ababacar Mboup. waaw ne Babacar Mboup ñemewul toog ak yow waaw lan mooy sa problème ak ak Babacar Mboup wala ak ànd sàmm jikko yi. bon question bi c'est une mais boo déggee ni mu ko posé mu ni. da ngaa def benn kii sur la personne de Babacar Mboup mhm. ça pose problème parce que ba suivre vidéo bi li ma fa wax Babacar Mboup est un garçon structuré Babacar Mboup est quelqu'un qui me respecte Babacar Mboup m'a dit qu'il un républicain mhm. donc Babacar Mboup est documenté et il a le droit de porter le projet qu'il porte mi ngi ci vidéo bi mhm. kon dafay dindi ni nga poser sa question maintenant lu tax ma wax ne Babacar Mboup du toog ñëmul toog suma wet wax propos parce que la dame qui près de moi m'a dit Babacar Mbuub nee na nangu woon na le dernier point bi bloqué woon l'audience qui était la retransmission en direct munoo Babacar Mbuub nee na nangu na ko mun ko Babacar Mbuub amul fit ñëw toog fii ma toog mu répété lii nga wax et je doute fort que Babacar moo ko wax parce que Babacar m'a donné un programme bind ci ci suuf retransmission en direct ma ne ko Babacar retransmission en direct bii nga bind man Thierno Lo sax d'accord ma ci mais ni nga ko bind laa koy jëlee jox ko président de la république. bokkoon ñu jox ko président de la république màggale màggale. ñu jox ko président de la république. mu ne je suis d'accord sur tout sauf la retransmission en direct ma ne Babacar dindi nañu retransmission en direct moom la presse va venir au su ñu paree ñu tànn leen seen micro nga door les conclusions de la rencontre mu ne ma. Thierno je vais rendre compte à mon scientifique ma dollil ko ci mu dolli ma ne ma audience bi duñ ko def audience xumtoo mën ko Babacar man mii di waxante yow je suis pas un cagoulard du ma dugg ci lu xumtoo am et pour te le prouver je ñu tàmbalee ba mu jeex ak li ñu waxante yépp ma signé ko pour que ëllëg soo demee di def conférence de presse nga ne voilà Thierno Lo mi ngi nii lii moo ko dox ma ni ko tu ne peux pas soulever un problème accepter l'audience président ne la jox leen ma seen point yi ngeen bëgg ñu discuter ko ci audience bi nga bind point yi jox ko mu ne la nangu naa ko sauf la retransmission en direct nga ne da ngay dem seeti sa comité ñu dolli la ci ne la léegi defal leen ñu ay proposition date pour qu'on vous nga dem booba léegi dellu si dellu siwuloo bu ma yemee ak Babacar Mbuub ci foofu ma ñëw ab journalist toog ne ma Babacar Mbuub nee na dindi nañ point de blocage dama ko naan non Babacar mënulaa wax loolu parce que man bë bërki démb maa ngi wax ak moom mu maa ngi dox ci mbir mi dinaa dellu si ci yow ci sama man ko mi ngi wax ay intermédiaire yum cité wul man ko je me man mii la d'accord maam Khady mais mais transparence bi aussi ci euh, transparence bi askan bi bëgg. waaw loolu transparence mais xam ne dañu ci askan bi ñoom ñoo ko porté. mais je dafa leer Euh, bu Walf Quotidien sinon duñ fi jógee ah ñëwal à la une bu Walf Quotidien maam Khady euh, mais temps bi temps doo ko bàyyi mu posé ma ko ba gars defe ni fii ne eh, dama bëgg xam rek sa position monsieur le ministre pour monsieur le ministre dama bëgg xam rek sa position ñuy wax euh, par rapport ak euh, homosexualité ak combat ànd sa ànd sàmm jikko léegi